datu lancement officiel bésu Kalante mooy journée nationale pour le cousin plaisanterie léegi nag loolu soo gisee ñu def ko dañ gis ni Kalante dafa am doole trop ci Sénégal bés bu nekk ñu ngi koy dund bés nekk ñu ngi nekk ak moom ci garage yi ci marché yi ci bureau yi te loolu dafa bokk loo xamante ne mooy apaiser tension bu am ci réew mi donc loolu moo gën a tax ñu bëgg a créer journée boobu noonu te journée boobu noonu suñ koy créer day nekk une national maanaam réew di koy féetee bon nekkul koo xamante da koy fêter en fait dans un en fait dans une commune ou bien dans un village quelque part mais c'est pour toute la nation te dañoo gis ni kalante dafa dafa nekk lu baax parce que diggante doomu nijaay ak doomu bàgget diggante pël ak séeréer joolaa ak séeréer ba diggante intercommunautaire donc di gis ne loolu yëpp mën na participer ci apaisement ci réew mi